Thiénaba TV sunu yëf la kon ñoo koy bokk taxaw. mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc abone abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. Thank you. mbokk yi leen di nuyu di leen ziyaara di di leen nuyu nuyoo di jël ci nuyoo yi sama nuyoo bi islam da mooy jaar na jaamu yàlla ak barkeem ak yërmande wàcc ci moom ah, xam naa dañuy commencé di liggéey bi rek waaye ki yor mi concentrat bi def naa mi ci yoon mi nee na mi ngi mi ngi waaj a dugg si waaw waaye heure bi moom comme comme ñu xaar ñu jox xale bi rek mu commencé bu commencé ba ci kanam bu buggee di gàllu tasanteeg yéen ñu concentration ñu balaa génnaat incha allah maa ngi soxna Fatima kon yéen ñëpp nag ñu ngi leen wax ñu ngeen teewlu ndax uh, alquran la te alquran moom fu ngay jàngee dañoo war a déglu te teg teelu ndax yàlla yërëm ñu xale bi dafa koy tiitaroo tudd sama turandoo la mooy sama premier turandoo mu neex ci man ma jàngal ko commencé ko alif tey ma comprendre fas ma lay joxe damay joxe tey ba doyoo mën nga jàng ndax li may yëg sama xol bi man rek maa ko xam ak yàlla Mouhamed Mbaye di dàkkal laa xeer yàlla la yàlla fay kii mooy sama premier turando ñu tudde ma ko jox ma ko ma dalal ko alif. nangu ma ko jox kenn daa def nga jàngal am na ay jàngal ko ma ne maa ko jàngal sama bopp jàngal alquran ku ko def sa bopp xam nga ne métti na ku ñu méttiwul lay wax ngay wax lu ko neex waaye heure bu ma ko jàngalee ba naa ko Fatima maa ko jàpp ni dama laa bañ gisuma ko ma gën a bëgg yow ci daara ci waaye damaa bëgg alquran nekk ci sa dëkk mu muñ ko loolu nag xale la waaye xale bu mën a muñ la téeméeri saa ak fukk ak ñeent ku doon ko mun nga yaakaar naa ba wàññi la tey jii laata ñu gis ndax ma dafa ñu ko baax sa tool si la ko def damay wax ginnaaw sama xol dal sama dal bi waaye bis bi naa la ko doon bay nga toog gisee kër lu papa toog gisee kër lu bàcce toog gisee tubaab bii nga xam ne Pape Sango la bii laa koy am fekk nga toog sa daanaka alxuraan kii rek laa ko tey ñëppay jooy boo leen ko neexee te dañuy jooy nee na ñëpp a dox say moo woon الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون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 وزروجها وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فقالت أبوابا وسيئة بعد وقعت رعبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 أنذرناكم عذابا غريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالتقت الصراط أمرها يوم نرده واجبا تقومها الراجبا قلوبي يومئذ واجبا أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الغافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إذا أنت زكى وأهديك إلى ربك فتشقى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فغضب ونادى فقال عما ربكم الاعلى فعبده الله ونفع بالاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى فعون اشد خلقا عن السماء بناه رفع سمكها فسواه واغطى سبيلها واخرج بقاها والارض بعد ذلك خلقاها اخرج منها ماءها وقرعاها والجبال ارساها متاعا كثير الانعام فاذا جاءت فارزقها يوم يتذكر الانسان اسمه وبخشت الجحيم لمن يشاء فاما من يعلمونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى عنه طلبه فعنه طلبه تفتى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءت يسعى فهو يخشى أعرض عنه طلبه كلا إنها تذكرة خلاه شاء ذكره في سوق مكرمة مرفوعة مطهرة لا يبقي سفره إرادة فرغ قدر الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء عرشه كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إذا طغاه أنا صببنا الماء صبا ثم سوقنا الأرض سقا عملنا إياه حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفيض المرء من أخيه وأمه وأبيه وساقمت ذنوبهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسكرة ظاهرة من كبسها ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قبرة أولئك هم الكفرة الفجرة سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقطعت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار مقبلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سجنت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء رجت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة كتبت علمت نفس ما أخلت فأعرفت بالغنة أجمعت بالغنة والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسوله قريب ذي قوة عيسى بن عسلم مطاع ثم عميق وما أكثرهم مؤمنون ولقد رآه من كل مبين وما هو على الغيب بمنون وما هو من قول شيطان ظنون أنا تشركون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت فإذا البحار سجرت وإذا القبور نصرت علمت نفس ما أحضرت ولا نفس علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سوى فقدرك في أي سورة ما شاء أكبر كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي فإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هو عنها بغائب وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس بنفسه شيئا فالأمر يوم الله صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتقين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فإذا قالوا أو هم يبصرون أرأيتم إن أولئك أنهم موعظون ليوم عظيم يوم يقول الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرسول قيل يوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الدار الأبواب الذي عندهم وما أدراك ما عندهم دار مرقوم يسأل مغفر إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون بالرقيق المخبوط تعبدهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه ومزاجه من التسليم أين يذهب ومقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يتغامزون فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وألقت فيها وتغلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك عدو إلى ربك لمحزون العقيم فأتنا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولا ينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان بأهله مسرورا إنه جن أن يقول بلى إن نفسه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل ما وسق والقمر إذا اتسق أتركهن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله عنهم ما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين مشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات غير من تحتها الأنهار ذلك الفوز القدير إن بس ربك لشديد إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الرحيم إلى سنته فعال بمعنه هل أتاك عن الجنود فرعون والجنود بل الذين كفروا في نفسهم فالله منهم ورائهم مؤمن بل هو قرآن حكيم في لوح مكتوب سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ويقول نفس جنة عليها حافظ فإذا الإنسان نظيم خلق من ماء دافق يخرج من بيت والقرار إنه على عزمه لقادر يوم الأسرار فما له فيه قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والأرض ذات السر إنه لقول رسول وما هو من إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 그냥 우리가 우리랑 우리는 누가이다. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokki Joal ci Ayub ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di leen jot li nuyoo waa Thiénaba Seck ndax Thiénaba day dëkku taarix am Amadou Dar Seck sanc ko ci 1882 ni woon àll wa àll ba allahu akbar suuf dëkk bu mu yàggu waaye ci wàllu daara la moom wax dëgg yàlla dëkk bu yàggu la ci wàllu daara bu ko defee bu ko defee ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo ngi fekk ci jotaay bi bala may nuyoo nag damay ñaaral kilifa gi nga xam ni man sama sëriñ man damay ma jàngal. muy Oustaz Alioune Gueye mooy papay soxna si toog mu ko jàngal te ku xamoon Oustaz Alioune Gueye da koy xabaare sunu waajur bàyyi alaaj Sango de Mbaye fan moom laay njëkk a ñaanal moom ak Oustaz Alioune Gueye wala mu julli ci julli ji yàlla na yàlla yërëm leen yàlla na yàlla jéggal leen yàlla na yàlla dëkkal leen aljanna yi firdaws mi nga xam ne arrasul rahmaan moo ko maa maa ngi waa kër waa dëkk waa jàkk gi bu ko tegee ci loxo sëriñ moo ñu ko loxo imam ci loxo chef de quartier ci loxo maire ci loxo kilifa kër gi ñoom ñëpp moom la leen séddale nuyoo bi ñoom ñoo ñoo ci biir ma sa dem rek ku am kàddu programme bi ñu mbokk yi xew bu nekk am na waaye xew yëpp bu dajee dama dee gis lu dàq wii tukki bu nekk am na waaye tukki yëpp bu dajee tukki ñibbi si waale kaamilu alquran damaa gisoon tukki bu mel noonu ndax nit bu duggee ñu ne indi na alal ju bari waaye la yem waaye ab tuutay départ fii def ay kilomètres dem jaara ba ñu turandoo woo soxna na ko ñëpp bàyyi xel kii di soxna Fatima Gueye di doomu Oustaz Alioune Gueye moo ko mooyu lépp ba des ak alxuraanu karim ñu ngi leen ko moom ah sama tante boo commencé nii daf la sotti. yow tey boo ma jógee fii damaa bëgg waa Joal te àll la de Joal fii damaa bëgg damaa jógee fii tey kii ñu bëri na ma lan moo tax daal na moo ñàkk lépp gis nga li mu soxla nii sax nii mu soxla xool wala sa soxla dara sax mu soxla xuraan waaye xewal programme moom nangu naa suur lépp yëpp des nga daal boo mooy benn ñeneen ba seen loxo ñu musal nit ginnaaw waaye moom yow ne ko de loolu de li mu xam mooy xale bi daa war a jàng kon soxna Fatou Ba sa turandoo wi ñu la jox nga liggéey ci ba def ci la saf sa bopp yow saf sa saf maamam mooy soo bàyyi alaaji saa ngoone waaye boo fàtte mukk di ñaanal imam Samba fii 1999 faral naa fi ñetti guddi fi ñëwoon programme programme bu diine rek ñu fi ñëw mooy ñoom ngeen di gis ñuy génn projet yooyu ñëwoon na trois jours fii ci jàkka waaye booba imam Sakho bu lay jëlee faaw nga jooy ndax ba tey muur na bu ñëwee dañ koy orienté mu xima bi nekk loolu bu kàppare saa yu ma xam ne naan tari ndeysaan baat bu neex la yor yàlla na ko yàlla yor di déggal ko kon ba fii euh, ñu ngi ànd ak Kepa TV kon li ñu def ni tey dëgg la soo war na xëy waaye c'est international parce que télé bii di Thiénaba TV mooy la télévision de Mame Ahmadou Seck Thiénaba TV la télévision religieuse Thiénaba TV la télévision des grands événements balaa sama kàddu ngeen dugg si démb ci conférence laa ñaan sama daara waaye jëmm ma soxla Fatima Gaye dafa nekk nit koo xamante ne bii bu ma soxlaa koo soxla day ñàkk kon mbokk yi ñu bi ci soxna Fatima Mbay ñu bàyyi ko mu maaj dugg si waat bu ko defee mu dugg feneen dama bëgg sëriñ bi ñu fi teewal waa borom Touba ñu fi teewal waa borom Alaaji Malik ñu fi teewal jàkka ji ñu fi teewal mayeen xam ne kii dugg si li mu mokkal mooy alquran

xale li ci topp toppaat ci yal na yàlla dëgëral ko euh, sàmm ko aar ko li may leeral nag ci mokkalu daara yi mooy lan xaw ma la kii dañoo fi rek tey ngir ñu jox leen bànneexu mokkal waaye daara ji ma xam ndax sama doom dafa jàng sama doom jàng dafa rek dañ ma sama sama doom kii jàng na ko ba pare nag gratuit xale bi jamono ji may wax yow na vingt ans muy soxla su ma yemee bi mu ba toll ci war a mokkal waaye mokkal daa métti yenn saa yi mu daw ñëw gën te moom xam na bu see bu ko séenee kenn bay kenn mu yem léegi bu dawee dafay dégg bu dee sama benn xarit sama waay ma waayoo su ma yemee ma ne ko dara mi ma ne ko indi mu indi mu yem. waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin mokkal alquran mokkal bu rafet tey mi ngi jàngale alquran dem ko defa jarawa bi sëriñ daaram ñëwee jaraw di conférence sama biir conférence ko témoignage bi mu joxe ci ñoom ci ni ñu koy jàpp ni ma ma ne loolu ko amee ñu la yàlla yàlla aaral ñu loolu mu ko ci ay kàddu yu euh, euh, joxe ndax kii fa mu jaar ba dégg mokkal ku fa jaar ki nga xam ne mokkal dafa métti ndax kii moom yéen a ko gis nii ay ñu baax baax yëpp boo ne bu mokkalee tey woon nii tey mokkal boo ñëwee xoolal gërëm su ko laajee yow mu réer daal na ko nii moom ku ko xale ko si maanaam ku koy lii wala nga def mënu ko mokkal dara nga jënd waat ba pare fas kanam kii spécialiste bi wax fas kanam yàlla yàlla yàlla yàlla man spécialiste la ci li ma gën a kontaan loo ba ma mën a ñëw ba biir daara ja mu pire sama doom mu leer ko ne tey tey mbég lu ko sama xol xaw ma pire ko pire wala fii ñàkk ay xamul tax def xuma kat mooy yow moo ko maa moom da ngay sa baay yow moo tubaab la ñu gaaw ma ko alxuraan yow ma yow ci su may xamee ne amul gauche bu mu mën a jaar woon droite ne ma جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون ونمارق مسكوبة وزرابي موصوصة أفلا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 فالسمع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قدر الذي يحيي ألم تر كيف فعل إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسوط عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ألا ولا تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما ألا تعبد إلا دفعا دفعا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وما له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعزب عذابه وهب فلا يوثق وثاقه وهب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ولا تحل بهذا البلد فوالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في قبل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا بلدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد من عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المسألة عليهم نار مسلم سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دعاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من أسقى أسهل التمويل تغوى إذ انبعث أسقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فانتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسعى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى صلى النار وأخذه الله فأنزلته النار وتولى لا يسقاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سيدين وهذا باب العميد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 كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الهدى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية هي كاذبة معجرة طيب عافية سنبلغ الزبانية جل على طيع المسجد والقريب سورة صديق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى رد عن فجر سورة بينة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين من ربهم حتى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحبا فيها أمور قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين قيما إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوان ذلك من حسن ربه سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسلك الناس أسرع تبديله وأعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ஞானப்படுமா பலன் வகையிலான சிவகா பாதம் நவீனமா பாதம் நவீ இன்னலி إذا قنون فإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الغيب لشديد أفلا يعلم إذا بصر مع القلوب وغسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما قارعة يوم يكون الناس كالبراش وتكون الجبال وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين إلا تجعلن يوم عن النعيم سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم فالعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الحق وتواصوا بالصبر الذين هم عن ضيعتهم ساوون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 takbir. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفي سيبوبا سيبوبا سيبوبا سيبوبا باي موي ماغي نيو après yow laa jëkk a jox kanam mbokk yi xool leen yi kii moo teewoon turandoo ñuy toog ñu soxla Fadi Bagayoko mu téye ko ànd moom ba moom Fatiha Baqara ba Naas mbokk yi mu mokkal mooy lan alquran di wax yàlla alquran bu ko yàlla waxee da ko jox ci lu tedd rek la def Jibril alayhi salaam mooy ki nga xam ni moo ko wàccee daay fii mu sori dañoo toog ko daay boobu dañoo toog ko daay toog ah deux soxla deux soxla ñëwal daay moo pare deux soxla moo tax mbokk yi alquraanu karim jibril alayhi salaam moo ko wàcce yi ruuxul amin wàcce ko ci sallallahu alayhi wa sallam muy mu xawlul amin ko ci dëkk bi gën a tedd muy Makka di bandul ko ci guddi bi gën a tedd muy laylatul xadr wàcce ko ci weeru gën a tedd muy weeru koor wàcce ko ci làkk bi gën a tedd muy làkku ko ci xeetu gën a tedd muy xeetu sayyidina sallallahu alayhi wa di ma bëgg képp koo xam nekk nga fii ci alxuraan saf la dama bëgg ngeen ñëwandoo fii ñu teral soxna Fatima Gueye ku man sima na ko def ku man alal na ko def lu waay man na ko def ñu jugandoo teral soxna jëm ji nga xamante ne bii suñu ànd ak xale bi seen wul waaye maa ko ñu teral ko bu ko defee incha allahu rabbi képp koo xamante ne joxe la ja la nga joxe yàlla ko yàlla barkeelam la mu desee mbokk baa ngi baax ma ngay battre de ma ngay battre de ma ngay battre ay 5000 ma ngay battre ma ngay battre ay 5000 ci dama koy 10 000 5000 10 000 5000 10 mbokk ñëpp ne maa tere ñëpp ku toog rek kenn xamul loo bëgg mbokk yi gis naa baatam bu nekk waaye waa Joal ñu sibil sibil ñu baatere baatam cinq mille mu koy ñëwee ne mu dix mille tey la ko sama am na fii ci Joal ba nga xewee ñeent xam nga loolu alxuraanu karim mbokk yi kii man dix mille di ma joxe ku man ñaar dërëm bul ko bayee joxe ki man juróom dërëm bul ko bayee joxe ndax yàlla subhanahu wa taala li muy fay mooy yàlla yëgal na fay ma ne baatere ma ne baatere bu ko defee ñu teeloon sunu doom ji mu delloo ko sëriñ Daara fan la ko sëriñ Daara kon fan la koy fan la koy def fan koy def mooy ci alxuraan su ko defee mu nekk tëdd muy dox waaye waa soo ay rajo xam waay waa soo ay rajo xam waay baatare dix mille ak cinq mille ñu koy jëfante lan moo tax dafa yàqu ba lépp lu ci waay man ci def ko fii dañoo fas yéene dara tey suñu gan gi dañoo am gan ñun waa Jiwaar boo xam a bala jógee ñëw na ñun a dara bàyyeekul a bàyyeekul de dañ si gis dafa ko ñu faale la bàyyeekul de ña nga sant yàlla bu baax ngay wax ci màggu alxuraan Sëriñ Tuubaa wax ci màggu alxuraan min al xaqi jaa al xaq li xaqin sisati baqin mubinin laa yàlla ñu sax leen alxuraan màgg gi ko yàgg suñu borom màgg bi mu koy indi ni mu gën a wóor rek la ko jaarale ci fi mu gën a wóor mu am ñu koy moom la ko teg ci loxo di ko yëtal loo ko ba mu gën a wóor muy waxoon na loolu muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran ñeenti àq la benn bi yàlla la bi ci des alquran la bi ci des Seydina Jibril la bi ci des Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala suñu tubaab di ñaan xaq jaa al xaq li xaq bi xaq mubinun laa yu'addi min shay nga ne dëgg yii doo xam ne ci man la bàyyi ko ma jox ko bu dëgg wéetal ko bu dëgg nee na boo ko déglu laa yaa jënd saa kenn mën koo gàttal mooy Alxuraan min kitaabin bii mi ne lay xamatan maanaam ñoo ngi fi yow laa koy sant mooy Alxuraan ji nga xam ne ci la ñuy yaakaar tey jii xeet li bu ëllëgee ci la ñuy yaakaar yëngu-yëngu suñu kaw kon soxna Fatima lii nga def ci sa turandoo bii la sëñ Ousmane Bousso waxoon suñu fan ne ko sa turandoo yi day bari nañu lool waaye ñëpp mënoo leen a rafetlu mu ni kuñ ma tuddee ak bàyyam daa leen di bàjjal waaye yow de sa wii yóbbu ko bàjjal te article alxuraan léegi wax nañu bu ëllëgee yàlla may na ko ci barke alxuraan juróom-ñaar fukki junni ci aw askanam mu yóbbu leen kon loolu na solo ngeen alxuraan lii xale yi doon ci alxuraan sonne nañu ko taxawu nañ ko jóg nañu guddi jóg nañu bëccëg ngir jàng alxuraan ba yàlla def ci ñoom alxuraan loolee rek a jar ku sonn da ngay sonn ci lu ko jaar alxuraan doomu moo jar sonn alxuraan rek fi ne xayru maa yuqaalu wa xayru maa yanfaxu fiihi al-baal moo tax ñu laaj ñu jub leen alxuraan li ngeen ci def ci màggal bu doyul li ngeen def ci màggal alxuraan doyul moo gën ci lu ñuy moo gën ci lu ñuy dépassé lu ñuy dépassé àll moo ci gën kon soxna Fatima jërëjëf gàcce ngaala sa turandoo yi def ko ci moom loo xam yàlla def ko ak turandoo def ci moom lu mel nii jërëjëf yàlla alxuraan di wërsëgal yàlla alxuraan di suñu wërsëg ñun yëpp ci daraja yoon bi barke alxuraan kër gi nag lii jël alalam def ci alxuraan daan wax ci alxuraan daan sonn ci alxuraan ñoom saas ñoom suñu Moustapha ñëw ñu ngi fi ñëw maa leen fekk ñaar ñoom dañoo jàngi muy dégg daayira al Oustaz Aliou Guèye Oustaz Bees ci El Hadj Sabaly laa fi njëkk a dégg Dakar ba taseeg moom ci Ropo Mandel sama kër mag fa newoon mu ñu murtaa fii ñu ko tàkk dañ fay jaar ñu waxtaan nag ci loolu Oustaz Guèye rek ñu wax xam-xam parce que sama mag fii ci loolu bëgg a xëcc ma dem ay yaatu lu mu fa dem waaye Oustaz Aliou Guèye liggéey na ci alxuraan liggéey bu rëy nii mu baataloon nag daan ko jàppale parce que boobu nga wax li imam Sango ne moom moo ko jënd foofa waa ke seedeel nañ ko fii waa Jiwaare seedeel nañ ko fii kon moom dafa bëggoon a baal daa ci dox daal ci liggéey bi waaye nag sadaxatul jaari mooy sarax bi gën sadax bi sarax bi nga xam ne da koy saraxal muy dox ba keroog daa ñu ngi ji li ci jiitu mooy alxuraan nga yar sa doom xamal ko tabax jàkk jënd kaamil alxuraan bàyyi ko fi ñu koy jàng. mooy sadaqatul jaariya ak jiw yu mel ni yooyu nga xam ne dafay des sa kon xale bi li nga xam ne yàlla def na ko ci moom yàlla yi wërsëgam yàlla yi muuram yàlla yi sunu muur yàlla yàlla nangu jotaay am nañ ci yaakaar loolu la rek te lépp di alxuraan mun nañ yaakaar ci fu ñu ko jàngee ba mu àgg lu koy waay ñaan yàlla dina ko nangu ku ko fekkee yàlla dina la jéggal yàlla na ko ñu teew teewaale ànd ak Alaaji Saalu Seck ñu xamal ko moom tamit mu doon wëllëree Alaaji Saalu te Njóor Njaay bi suma ginnaaw moo tax xamal nañ ko ci ànd ak liggéey ak Alaaji Saalu wële dina mos naa ànd ak moom ci liggéey donc liggéey ak ñi nga xam ne fi nekk yëpp di leen nuyu di leen ziar di nuyu Alaaji Maysa Alaaji Cheikh Mbay Alaaji Pape Mbay loolu yëpp di nuyu yéen yëpp di ndokkeel soxna bi lii toog aji say aji xaj ñu ngi leen di ndokkeel alaaji jóge na fi waaye seen taxawaay mat na rafet na yal na yàlla gën ko yàggal yal na yàlla mottali njaboot gi seen yéene ci yéen ñu yéene woon ci seen bàyyi yéene ko ci yéen yal leen ko yàlla may ñu def ci dara ji yéen bi barke alxuraan seen taxawaay rafet na ci taxawu diine ji taxawu lisaan taxawu njaboot gi lu ci bay ndoo koy gis yal na yàlla saxal jàpp jërë ngeen jëf jërëjëf Moustapha jërëjëf wax nga ko ñu ngi ko fekkoon lu fa nga ñëwaat wax nga ko ak mag kër sëñ Tuubaa gi yëpp ñu ànd ñëw teew ñu a sama téléphone bi maa ko wuyul waaye mu ngi sonné rek wax na ñu daal di yéemi su ko defee rek day yëpp continué waxtaan bi sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax Moustapha nag lii yaataloo ko soo ko yaataloo fii kenn soo ko yaakaaroon kenn du ko def sa waajur am na ko fi wëlale ci dëkk bi te am na ko fi ay wëlale lu mel ni sëñ Thierno Kane ñoom sëñ Abdoulaye mii su ko yëgoon dana ñëw baa mu yëngu bu yëndee dana ñëwaat ak keneen ak keneen ak keneen na ñëw Thierno Kane la ñëw ñëpp na waaye nag soo ko yaakaaroon fii dana fees del te it jar na ko ndax yéen incha allah sama waxal ak ci kër gi ak jullit yiw rek lañ wër su ko fekk nga jël boppam kon boo amee occasion am yiw woo xam ne nit ñi mën na cee jaarale yaatal ko waa Léone Dara te lii fekk bon nit ñi mën na cee jaarale. kon ñooñu taxul moom kàddu yi sant bu baax la tey gërëm te ñaan lii sax yàlla fi sax di gërëm ñoom di barke am xaar ak seen tubaab asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw ah, yàlla bu ñu mën a yàlla defal na ko amoon yàgg di def muy lislam jàngal xalaat euh, ak Makka yëpp def na ko daana ko def ak man nag yàlla boole woon nañu loo xam ne sax sama dara di yegg toog ci ñaar boobu taxawaay naa moom waaye yàlla dafa doon muy jëm joo xam ne kii nag boo xam xam nga ko nit ku bëri ko lool ku xeebu kenn euh, yu bëri daal daanaka mënu ma ko wax ma waaye jëf na ko ci man jot na ko ci man soxna yal na ko yàlla fay dama daan soxla fii ñu war a dem di ko wax ko samay soxla mu ne xaaral ñu ne ko ne yow mu ñëw ne ko mu taal waxtaan ñu dem bëgg te ne ni mu war a jox sax yàlla